asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. suñu imaam eh, Mor Mbaye ñu ngi lay delloo nuyoo di nuyoo njaboot gi yëpp rawatina groupe al imtisaak bi hamdulillahi al matin ku kulim juum waaye suñ la suñ tegee eh, nuyoo bi ci sa loxo rek mel na ni àgg na ci ñëpp ñun nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax nii nga déggee xabaar bi daal sàllaaw ñu ni noonu lañ ko déggee rek jotuñu benn convocation dañ xëy xëy rek gis journaux yi génne photo bi di def déclaration ne dañ jox convocation waaye ñun de jotaguñ convocation lu ni mel nag ay rumeur yu ni mel defoon nañ ko fi ca waaye nit ñoo xam ne ñoom am nañ sañ-sañu këy xëy ñëw bett mm, la dal ci sa kaw te amuñ ca benn wergoñ Euh, bu leen jombale dara man nañ lu ne waaye man daal wax dëgg yàlla ba fii may wax ak yow nii di la tontu awma benn benn benn benn élément bu may wan ne ma loolu ab na yëg naa nag ne xale ya nga xam dañ leen a jàppoon ñu matoon fukki xale te defoon appel ñooy ñoom woo nañ leen lool moom yëg naa ko ci benn yëgle boo xam ne Pam Ndiaye def na ko ci Walfadjri waaye man ak sama bopp de benn ben benn élément jotuma ko ànd ak nag jamtalu ne ñoom moom man nañ lu ne ñoom waaw lu ne mën nañ ko ñu ngi jër jëfal mbokk yi yëpp nag gis naan dem ba tey moom noppalu ñu wax dëgg yàlla ci woote beeg euh, réseaux sociaux yi partout foo dugg rek da nga ko fekk loolu yëpp li muy yittewoo mooy maanaam li muy wane mooy yittewoo goo xam ne jullit ñu yittewoo nañ ko seen seen mbokki jullit loolu nag ak ñor la ak niveau boo xam ne bu ci aw askan àggee sant yàlla gu rëy rëy la te wax dëgg yàlla réaction yi bàyyi ko na fu ne nag fu ne fu ne ah, ñu koy sante suñ borom bu baax a baax a baax a baax di ko sante mboolem mbokk yi di leen wax nag ne liggéey moom bu soobee yàlla ca kanam rek yëg naa nag ne moom fi mu ne nii mel na ni xaw na leen a gëtën yii yëpp ay patamtu la rek ay patamtu li wolof di patamtu waaye teewut liggéey bi moom bu soobee yàlla day dem yàllaa ko téyel boppam yal yàlla gën ñoo saxal ci yoon wi E, gën ñoo dëgëralal sunu pas-pas ak sunu sunu ngëm yàlla ba dara du ko mën a yox-yoxil jërë ngeen jëf maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf bay mën nga ko jot li groupe bi allah